ya jaajëfite sama gars Mr Mister Shake Mr. Mister Shake ah, oh. Mr. Sheikh Shake depuis les États-Unis d'Amérique côte ouest lay don sama gay mangi côte ouest no no sama côte sama ju jum Brooklyn New York sama gay mangi Brooklyn New York Mr Shake di wax ci defetu Macky Sall wa APR ñu ngi joy wa APR ñu ngi joy APR tasna Sonko jàmbaar bi Sonko jàmbaar bi daaneel na Macky Sall gars yi ku dugg da ngay like maa ngi Brooklyn Mr Cheikh ah Cheikh Bara Ndiaye sama xel mi ngi ci Cheikh Bara Ndiaye ndax temps yi ma daan wax Mr Cheikh depuis Brooklyn New York Cheikh Bara Ndiaye ci boppam sax ndeysaan ne Mr Cheikh Brooklyn ay waay suñu xel mi ngi ci Cheikh Bara Ndiaye mi nga xam ne toog na ci émission mu ne Mr Cheikh Brooklyn suñu xel mi ngi ci moom yàlla na yàlla def ñu dem génne ko ñu jënd ko rapidement gaay tay ñew leen ñew leen dama bëgg tay dama changer décor dama ñewon pour jënd ci ay bagage gis ngeen gis ngeen sama shag shag shopping bangok sama xel nek ci euh, ma ne xaaral ma def euh, euh, analyse encore suñu victoire bi ñu am demb victoire bu doy war bo xamné gis nañ ñu né wa APR dañoo jaxlé ñu ngi joy. waaw jaajëf ba dem ba xaaral ma xaar leen ngeen dugg tuuti après ma tégal leen wa APR demb dama ko sétane ba guddii ñu ngi jooy xool leen dañoo mujj dem Mermoz di saraxu makki Sall gars xaar leen gars yi laaj APR tas na yéen waa patriote yi yi yaakaaroon ne amuñu victoire wala Sonko amul victoire boo leen dégloo dégg jooy naa ba sama xol féex dégg nga jooy dégg nga naa ko waa APR yi ngi jooy mënul am keneen Sonko ci ànd. dégg nga Macky ay ministre teg leen fi. ak moom ca première heure. ngi xas ministre yi. ba ñuy dem place souvenir. déglu place euh, ngi jooy dëj national. boo ci woo. gars yi laaj leen partagé leen téléphone du la wuyu. dégg nga faale njaboot yaa ngi nii. dégg nga te ba ñuy dem di commencé di. ànd ak koo ci doom yi liggéeyuñu. dégg nga dara xale yaa ngi nii koo ci laaj. affaire tas na kenn benn ministère jëlul nga liggéey. yàqal. dégg nga mu def nii président ànd naa ci. ñoo yàqal Macky Sall waaye nag defaruwaat ñëw ko bëgg ñoo fi. ñu ngi jooy ñu ngi jooy. kay laaj leen ni tamit partagé. amul benn waa affaire ñu ngi jooy Ousmane Sonko yóbbu na Macky Ardo. waaye nag xam nga lu ñuy wax. billahi barke rasulallah beneen yoon nekk ci biir président. Macky jeexal na. dégg nga. wallaahi taalaahi àqu Macky Sall dana leen. dégg nga àqu Macky Sall dana leen dal parce que ñoom ñëpp la defar. affaire tas na man mi xam leen ñoom ñëpp ku si nekk Macky. defar laaj leen partagé leen. commencement ba fin ku si nekk dama ne la ay mégo cigarette góor ñi ay mégo cigarette la doon abal. solution bi dinaa leen ko wax. dafa am ñu lëkkaloo opposition. dama ne la Sonko gagné na. am bagaay ñoo xam ne Sonko gagné na Sonko mooy nekk président 2024 dinaa leen wax lu tax. dégg nga waa affaire dañoo jaaxle gis nga leen démb kër Macky Sall lañ dem di jooy. daan ko rëccu rëccu goo xam ne. dégg suñu yëgoon daan fi bàyyi Macky Sall. na ñun ñëpp am na nu métti. dégg nga waaye yàlla dina ko sàmm sàmm njabootam. waaw première dame mel nii Marème Faye amul ci àddina. dégg nga waaw affaire na déglu leen déglu leen. moom di lekk ak di naan ak moom. déglu muy wax ak première dame dafa découragé démb. non ni mu réagir dafa jóg dem rek mais on a compris. dégg nga on a compris. non non non xaaru sax ba pare kii dafa ñëwoon di nu defal. dégg nga parce que moom xam naa ni xam na yu fi. Marème dafa tristoon dafa ñëw di nu defal. Marème Faye dafa doon jooy dafa ñëwoon pour nu di nu defal di seet suñu réaction. Hmm. xam na ni moom si boppam ñi mu yor. dégg nga Marème Faye ñëw na ba foofu ñi mu yoroon. waaye waxul Marème Faye ñëw na ba foofu waxul triste ñoom dañoo bëggoon def troisième mandat waaye Ousmane Sonko moo leen ci génn. gars yi dégg nga dégg nga ñun tour nañu suñu yalwaan Macky Sall moo doon seen yalwaan maire bi maire bi nee na Macky Sall moo doon seen yalwaan dégg nga gis nga leen démba déglu leen déglu leen dañu ñëwoon yaakaar ne Macky Sall day def troisième mandat Macky Sall daal di leen trahir Macky Sall dafa leen a wor daf leen dundaloo yaakaar ba ñu dund yaakaar Macky Sall ne leen sama bakkan déglu Macky ne leen sama bakkan moom ma gënal seen bakkan dégg nga euh, dégg nga loolu ñu yaakaaroon loolu ñu yaakaaroon dégg nga Macky mënul def troisième mandat waxoon nañ la ko bu defoon troisième mandat dañ koy rey. Macky bakkanam moo ko gënal troisième mandat gis nga leen ñu ngi jooy euh, dégg nga moo nekk sama réaction su ma bëgg-bëgg wax naa ko euh, le président mu nekk le candidat. dégg nga malheureusement nekkul loolu la tànn léegi li mu tànn mooy peut gëm naa ko kay. incha allah euh, gëm naa ko Macky Sall dañ ko yóbbu Ardo. waaye jeexagul combat bi jeexul bu leen yàkkamti dinaa leen defal analyse mais pour le moment. Euh, représenté en leen bëgg euh, wan waa APR nu mu jaxasoo nu mu tase. waaw communication nañu continuer xaar leen communication visuelle bi da ngay gis ne quelque part elle woon euh, affiché ko. mais man mi nga xam moom selfie tout à l'heure. am na benn moment may waxtaan ak moom. mais xàmmeewu ma ko par rapport ma xamoon. Marème Faye Sall ci laa gën a jënd ndox mi. donc loolu wàcc na ma tuuti. dégg dafa le ñëw triste mën a a a jàpp leen ñaari position yëpp mën na xew dégg ba ma gisee yëpp ma xam ne moom da ñëw ànd ak 100 pour 100 victoire tey mu ñëw triste affaire bi Marième Faye minute la ko Macky wax ne du def même Marème fay affaire bi da ka bet nguur gi jeexna avion personnel yi jeexna caisse kees ñëwaat jeex na CPI mi ngi leen di xaar billaay barke rasulaay usman Sonko du nit gis ngeen wa affaire ñu ngi xaar lama tagal len benen video gay xaar lama tagal len benen video euh euh la colère noire de militants APR xol len bi la colère noire la colère noire des militants de APR ñu ngi jooy parce que xam nañ ne Ousmane euh, son excellence monsieur le président de la République a a trahi tout le peuple. dégg nga présenté parce que il est le seul et unique capable à diriger il a trahi toute fois c'est contre lui. Dégue, dégue. dégg il pourrait gagner les élections. Dégue. nga dès le premier tour en 2024. <laughs> mais le Sénégal va reculer en arrière. dégg parce que ñoom xam nañ Macky rek moo doon seen chance. xamoon nañ ne Macky jaajëf génne Macky rek moo seen chance. en gagnant les élections en 2000 en 2024. ñu ngi dee c'est le deuil national. à émerger en continuer à construire des forages et des ponts. gisaguñu dara <coughs> muy wax ay ponts ak forage jeex na seen forage jeex na. mais il a trahi son peuple. dégg il a. Monsieur le Président de la République. vous avez nous trahi. Vous avez nous costé. on a sacrifié notre vie. dégg nous on est sur le public. mais looy def parole parole président Maxime. Sall boppam moom mii di waxoon ne du bon. son parole il devait il devait il devait nous regarder. dafa ñu waroon xool xool lan moo il devait nous regarder. ak Fra ak français njalaxaanam nilaari dam leen jàngi. nilaari Macky Sall parena Ousmane Sonko yobunako na c'est la déception c'est le deuil national au niveau de la paire amuñu candidat APR day waaj a tas dégg nga maire bi maire bobu tam dafa triste xaaral ma génne leen vidéo yi du jeex ay way sum len meunon mënoon bu Californie ba gaay mer nañu mer nañu bu Californie ba ah bu Californie ba mo gënon na metti xol len ki tamit Tening nuyu ko. Euh, tey jii dama gis dégg dafa mel ni am nga surprise Tening kii responsable APR la triste dégg nga triste nañu. mais sant nañu yàlla. triste nañu. fier nañu. fier. dañu naan aussi alhamdulilah ala kulli xaal seen mbër bi daanu na. mooy nekk fekk moo gën. le géant est a terrassé le géant. président Macky ko na yàlla moo ko inspiré yàlla inspiré ko xale yi ñoo ko inspiré Ousmane Sonko moo ko inspiré CPI moo ko inspiré waaw. ndeysaan prédécesseur président Macky Sall rek la kon ndam ñu ngi jooy waa affaire ñu ngi jooy. ah gunge waa parti. wax nga dëgg. reconquête du pouvoir jeexal ngeen ci nguur ndax Macky mo doon sen dernière chance Macky sax bu bu bu présenté won dina am tout nit waaye militants yi dañoo mer ñu ngi xass DG yi ñu ngi xat ministre yi nee na ministre def ñu fa gat xaar ma jëm la indi watal benen est-ce que du woon Sénégal set laa ko gisee woon euh, xaar ma euh, euh, euh est-ce que du woon Sénégal set laa gis euh saway ba ñom ñep oh way fi mu commencé taw nak oh way bu len yak sama live bi way oo taw baa ngi yàq sama laaj xar xaar ma dem làqatu ji fële xaar ma dem làqatu ji fële taw baa ngi yàq sama laaj bi mais garaaw may leen ma may leen ma ma dem làqatu ji fële waaye affaire tes na Ousmane Sonko yóbbu na Macky Sall ardo Ousmane Sonko yóbbu na Macky Sall ardo APR tes na ndeysaan la grosse victoire du président Sonko sur Macky Sall gay yi ngeen baal ma ngeen baal ma taw bi taw bi la mais ma ngi ni xaar ma làqatu nii ndaysan bal len ma gis ngeen lima len tegal taw bi mo taw bi moo tax ma ñëw làqatu nii mais garaawal fi tamit dina la mën tegal ah, Sénégal 7 est-ce que du fofu laa ko won demba euh euh, discours, troisième candidature, des larmes. Ramaphosa Macky déverse sa colère waaw defe bila bii la bii la déglu leen bii waa APR yi mer ñu ngi saaga Macky ñu ngi saaga DG yi xaar leen xaar leen kii bi jàll publicité bi jàll ngeen xootaan ngeen xool xaw Rama Macky la tudd xaw ma déglu leen ko. ah heureuse malheureusement foorul dégg nga nee na Macky dafa ñëw trahir dafa trahir peuple sénégalais dégg nga. ñëwul Sénégal. dégg nga fekk fi ku ko gën te du fi bàyyi ku ko gën. nee na dafa trahir Sénégal. ci réew mi sëgg te xam nañ ne ni buy dem. waa affaire ñu ngi jooy. ndax li mu def ci réew mi. non dinaa wax ci décision bi il faut que ma wan leen d' abord dëj bi dégg nga déglu leen ko rek li tax ma ne Ousmane Sonko lu mu def du nit. dégg nga. ñu ngi jooy. seen lekk kaay moo jeex. ñu di victoire mooy Sonko dem ci élection yi xaar leen rek victoire la dinaa leen wax lu tax bu leen yàkkamti Kiniska jaajëf gën dégg nga. dégg nga. déglu leen rek. waaw. nee na Macky daf leen trahir. déglu leen rek dañuy ñëw di xas DG yi. waaw xale yi fii de ay maire rek laa fi gis. dégg nga waroo ko woon def nee na dafa trahir ay mbóot lañu dañoo xiif ñëpp a mer dégg ngeen ñëpp dégg ngeen kay dégg ngeen dégg ngeen dégg ngeen xam nañ ne Sonko ngi ñëw xam nañ ne Sonko mi ngi ñëw waaw yaakaar bu tas merci Sonko du ja Sonko du nit Sonko du nit dañoo xiif ñi ñi ñëpp dañoo tali yan tali immeuble <laughs> ana liggéey ana liggéey xale yi mu rey nag nervi nag gànnaay yi mu jënd nag pétrole bi mu jaay nag zircon bi avion bi mu jënd te tàgguwuñu hôpital Dantec mu jaay ko ñu ngi dee déglu leen rek nee du tuur deret te mu rey fanweeri nit dégg tuur na deret kay def leen ndànk rek ba dem ba def leen ndànk rek il est le meilleur nee na déglu leen rek dégg nga mosu leen defal dara dara defalu leen ko

c'est des ignorants xamuñu ne woon Macky bu waxee président dañ koy rey reyale leen ñoom ñëpp ñoom xamuñu sax fi ñu dugg déglu rek dañoo xiif déglu rek waaw gars yi laaj leen leen tamit nag après man man defar leen analyse dégg nga dégg nga nena ko kat makki kan la war jël ñom xamuñu xamuñu sax kan mo la war a jël dégg nga dégg nga jouer spectacle ba da taxaw sëñ Mountakha sëñ Bassirou Mansour déglu leen ko woo nañ leen ngeen wax ak président Macky <laughs> waa kër Baye Niass waa kër Limamou c'est trop tard maki, maki. fii gisul sax ku bëgg. dégg leen ko. ci maturité. dégg leen dañoo jaaxle. waaw kii man man film bi ma doon seetaan du sax man bima ma war du bii. bu ma war du mais gars yi façon de façon defe naa li ma wax gis ngeen ko li ma wan gis ngeen ko dama wan rek wa affaire yu wan naa leen ñu ngi li tax nag ñuy jooy loolu daf leen war a wan ne ñun dañoo am victoire ndax démb am na ñu bëri ñoo xam ne sax dañoo xaw a découragé parce que bu ñu sañoon Macky day bokk parce que Macky bu bokkoon ci la ñuy gën a arrangé Macky bu bokkoon ci la ñuy gën a arrangé parce que communauté internationale dañuy dal ci kawam ñun tam ñu génn xeex jëlee ko fa waaye ba ma gisee réaction après te fu fépp foo dem fépp foo dem Californie sax def Californie sax dafa découragé ndax ñoom Macky da leen trahir billaahi wallaahi taalaahi Macky Sall jaam bu mag la vrai jaam daf lay dunduloo yaakaar ba nga dund yaakaar mu ñëw mas la mais gars yi xool leen Macky Sall li mu def ñaari at nga gëmloo nit ñi ne yow yaa fi nekk ñaari at te moom Macky Sall loolu la gëm dafa gëmloo nit ñi ne moo fi nekk deux ans nii wii nii noonu di def lépp pour def troisième mandat gis ngeen ko samedi rek samedi rek dafa invité ay maire maireu APR Wilane diko saraxu Thérèse fay diko ko saraxal Ndeye Fatou Diagne di ko saraxu même mam boy Diaw mi nga xam moko moo ko yoral xaalisam xamuloon sax ni Macky Sall mi ngi waaj a ne ne du def dafa trahir wa APR mais nak Macky waxon na len ko il change au gré du vent samedi ba koy wax ak 99 pour na def waaye ba mu juumee ba wax ne constitution bi may na ma ma def troisième mandat foofu la rayé boppam ndax ci la Ousmane Sonko génn waa gars yi da ngeen di laaj da ngeen di partagé da di laaj da ngeen di partagé quand même ci la Ousmane Sonko génn daa di euh, euh, euh, ko ne xale yi génn leen bii paas du eggali am comprendre parce que ñun sonn nañu. chaque six mois rek ñu xeex après ñu bay looloo diital Macky mais du loolu kese ndax Macky ba mu génnee wax France 24 ñëpp ne day day def déclaration le 3 ak li am France Macron ci boppam nga xam ne mooy daan jàppale Macky Sall gis na dëkkam ci boppam moom dëkkam mi ngi takk est-ce que yéen ngi may dégg Macron daf koy woone ne ko saway saway man maa ngi ci problème ba pare yow nga naan. da ngay jéem a force troisième mandat te dégg nga Ousmane Sonko li mu wax mais du question Macron kese waa CPI Macky dafa am dossier te Sonko nee na leen nervi yi dootuñu génnaat Macky dafa am dossier yamul foofu waa waa sëriñ yi du sëriñ yëpp de du sëriñ yëpp de mais dina ci am ay sëriñ yoo xam ne dañ ko wone ko saawaay saawaay lii boo ko defee dëkk bi dinaa takk te ñun duñ ci ànd parce que ñun duñu toog suñu maam liggéey li muy liggéey ah ñu am ay taalibe ñu am fi suñuy kër am fi suñuy kaat-kaat am fi suñuy jabar am fi suñuy doom nga bëgg indi guerre civile Sénégal lii boo ko defee dama lay bay ci biir APR ci boppam ñu mel ne ñoom Amadou Ba Ali Nguy Ndiaye dañ koy woo ne ko président Macky lii moom dañ naan lii moom duñ ci ànd parce que xalé yi ñu nangu man néna len billahi wallahi taala man dama doon ñaan yalla Macky Sall wax waaw man lool la doon ñaan man fofu la xawé am toute déception victoire la dé mais dama am déception man lima bëggoon moy Macky né damay def Macky bu néwon day def système bi dañ ko fi jëlé ci sas ci sas lañ fi jëlé système parce que da ngeen xol li fi jot am sëriñ yi lëkkaloog Macky Sall Touba ci bopam nee nañ dañoo bëgg mom seen indépendance waxu ñu dara ci Sonko ni ñu koy toroxalee japp yu bari ray yu bari ñom ñep ñu gëm ñom nak bu ñu gëmmoon ci Macky Sall day def 3e mandat gis na Sonko ñaar discours yu mujj wax déggu leen ko mu tudd ben sëriñ déggu leen Sonko tudd yew askan bi wala ak 24 Sonko paré nak ku joxe bakkanam Macky nak Macky nak waxon na leen tank gisul deewam du bàyyi nguur ci dafa gis deewam mais surtout nag waa APR ñoo ko gën a teg pression kàngaam yi ñoo koy woo ne ko saway Amadou Ba man damay démissionné parce que Amadou Ba du jël bakkanam du ko jox Macky Sall pour nekk premier ministre kese loolu amul sens Amadou Ba la Amadou Ba c'est dina jël bakkanam du ko jox Macky Sall lenn rek moo tax Amadou Ba di joxe bakkanam mooy bu ko Macky ne di nga nekk président loolu dina ko ko jaral mais premier ministre boo xam ne Macky bu bu faloo après da lay dàq parce que Macky jaam la Amadou Ba doful da koy woone ko saay lii moom boo ko waxee man damay démissionné Aliou Ndiaye mën na ko ko wax ñeneen ñi ko xam nga ñan ñoo bëggoon Macky toog Farba Ngom Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Diaw ñooñu dañoo am ay ñooñu ñooñu ay Mamour Diallo Mamour Diallo euh, parce que Mamour xam na ne bu daanoo Macky Sall bu daanoo président bu mu buy ñëw moom du ko mën a protéger ci affaire Adji Sarr te makki bu daanoo li tax waa affaire di jooy li tax nag après man ma calme ma gisee waa affaire di jooy ci laa ne kon lii vraie victoire la ci ñu man bëgguma leen sax seetaan parce que man dama yaakaaroon ne su ma leen seetaanee dañ fay nekk di wax way président vraiment billahi wallahi taalaay affaire bi am na cinq heures de temps après sama internet ba ma demee sama sama euh, studio xoolal seetaanu ma commentaire yi parce que pour man bu ma seetaanee dañ fay nekk di wax way Macky Sall Macky Sall il a de la grandeur Macky Sall lii pour man loolu la ñuy wax mais xaw ma ne waa après ñuy jooy moo tax cinq heures de temps après dem ba ay côté une heure du matin minuit ci laa gis Californie dem ba Mermoz waa APR yëpp ñoo dem ba Mermoz parce que dañoo xiif dañoo xiif dañu yaakaar ne bu ñu demee Mermoz Macky Sall day génn woo leen dugal leen ci biir ñii mu jox leen un million ñii mu jox leen deux millions parce que gis nañ ne li ñu liggéey fukki at ak ñaar yëpp Macky joxu leen dara Macky nag di waaj a dem ñu ne ko nag balaa ngay dem dinañu ñëw nga jox ñu suñu xaalis ñu nekk fa di jooy di saaga ministre yi di saaga DG yi barke Rasulullah kër kër Macky lañ dem am na ñoo xam ne dañ ne foofu la ñuy fanaan ay waay vidéo boobu su ma la ko mënoon génne dama leen koy tegal kër Macky Sall lañ dem Mermoz xam nga yàgg naa leen wax ñun Mermoz lañ jëm révolution bu amee duñ dem palais Mermoz lañ jëm ñoom nag wan nañ ñu sax léegi kër Macky Sall fan la nekk Mermoz Californie moo fa dem mu def benn reportage xam naa sax su ma su ma defee euh, Californie après dinaa leen ko wat mais naa def sama analyse ba pare ba ma leen gisee nag ñuy jooy laa def analyse ma def prise de conscience ma ne kon lii vrai ndam la pour ñun parce que ñu tax waa affaire du jooy ñoom ñoo xam kan mooy seen candidat amul benn bokk yaakaar day tas ndax Amadou Ba Mame Mbaye bugul Amadou Ba nek candidat Idrissa sek ci benn bokk yaakaar lay bok ya instant dafa bëgg makki jox ko yëf yi te makki diko jox Idrissa sek Khalifa Sall mu sañon day dem PS PS wo ko samp ko wilan wilan mi fi waxoon doon wax Macky Sall gis ngeen président Macky yaay suñu candidat Alaaji Macky Sall te moom PS la bokk de léegi ngeen dégg ko mu ne comme Macky bokkul man léegi damay nekk candidat parce que waxoon na day nekk candidat Benno Bokk Yaakaar day tas. léegi nag Macky Sall ci dialogue bi la bëgg profité semaine ci semaine bi assemblée nationale mu wax ak ñoom xalifa Sall comme ni ko Sonko waxee ñu jéem a sot Sonko def benn coalition mais problème bi ñu am mooy kan la ñuy jël te boo demee Macky mën na def lu putin defoon jël benn koo xam ne kenn xamu ko. comme président de l'Assemblée nationale mu tek ko fa genre pion comme ça je bu ans après Macky ñëwaat Macky mais Macky mom dafa comprendre ne jéxal na fi du Côte d'Ivoire de ngi euh, euh, mu mu Macky li parce que Ouattara dafa dafa Côte d'Ivoire def mandat ba ñëpp giif Macron félicité ko après ma après mu bàyyi bu mu des ay deux semaines mu jël ay nit yoo xam ne léegi ñu dee ay gon bali gon Coulibaly mu def ko premier ministre kooku dafa amoon feebaru xol boo demee moo ko sax rey gon bali ñëw dee am na keneen ku mu falaat kooku ñëw dee daf leen ko nguur daf leen ko jaral mais Sénégal du Côte d'Ivoire kay sof na sa xel dal kay sof na sa dal Sénégal du Côte d'Ivoire Macky Sall ba mu né defuma ci la perte mais bu ne woon damay def day gëna dé waye ba mu né defuma lan motax tax Marième Faye Sall ñëw triste Marième dafa jaxlé ba jëfru Marième Fay dafa jaxlé ba jëfru génn dem siège u APR ba mu demee siège u APR waxul sax dafa ñëw actrice gars yi nee na gisuñu Mariam bi ñu daan gis waaw gars yi dana leen laaj doo leen partagé leen tamit laaj leen partagé leen man Mister Shake la maa ngi nii Brooklyn sama xel di dem si Cheikh Bara Ndiaye waaw parce que moom da daan wax ay waaye Mister Shake Brooklyn depuis Brooklyn bu dee ñuy seetaan ñu ngi koy nuyu waaye xam naa ne ñoom du leen sax bàyyi ñu seetaan télé est-ce que yaa ngi may dégg kii nee na sama analyse baax na waxoon naa du bokk non dama leen wax ne mag Sall il change au gré du vent Macky ci boppam xamuloo ndax day bokk walla du bokk samedi dafa jàppoon na day bokk waaye réaction Sonko Sonko dafa génn def réaction communauté internationale ak li am France ah Sénégal ndara takk looloo tax mu daw waaye daw bi daw bi bu gisee réaction waa APR nu ñu ñëwee këram di jooy ku nekk di yuuxu day gën a mer fi mu nekk Macky Sall xol baa ngi boy bu yeewoo démba nelawul xanaa gis nga leen ba muy def discours bi nu mu nu mu mere kanam gi nu mu funkee mi ngi doon dee parce conséquence conséquences yi pour Sonko xam nga mooy lan te loolu yàgg naa leen ko wax booy bii daf maa yàqal sama troisième mandat kii billaahi wallahi taala du bokk loolu moo nar a nekk conséquence bi waaye dina xam ne Sonko moo ko ëpp bokk Sonko moo ko gën a nekk xale Sonko moo ko gën a pare Sonko moko gëna nek sadik nekk Sonko day bokk par force wala election du am te election bu amul Macky Sall yaakar ne mo fi tok day nax bopam gis nga election bu amul dina ñëw ci prisonnier gis nga election bu amul armée bi mooy jël nguur gi wa affaire dañu jéxal bo gisé ñom ñuy joy dem kër Macky Sall fanan fa Omar Sy boo gisee ñu dem kër makki Sall fanaan fa di jooy ñoom xam nañ ne jeexal nañ parce que Macky Sall rek moo doon seen dernière chance Macky Sall moo doon seen dernière chance ndax Macky moom moo am ay alliés yu mel ne Antoine Diome Macky moo am ay nit yu mel ne Ismaïla Madior Fall Macky Sall moo am ay nit yu mel ne commissaire Sangaré makki Sall moo am ay nit yu mel ne Euh, amadi Diouf fanaan foofu lañu fanaan am na ñoo xam ne dañ ne duñ fi jóge fii la ñuy fanaan duñu dem gis man man ba mu leen xool ay ay côté une heure du matin laa laa leen gis xaw ma ndax enregistrement la wala du enregistrement gis nga kii nu mu tuddati Macky Sall moo am ay alliés conséquence bi li tax affaire bi ba garaaw Macky Sall dafa trahir waa Benno Bokk Yaakaar parce que dafa gëmloo Ismaïla Madior Fall que ne man damay toog troisième mandat Macky Sall dafa gëmloo Antoine Diome man damay def troisième mandat Macky Sall dafa gëmloo Mamour Diallo man damay def troisième mandat dafa gëmloo général Moussa Fall man damay def troisième mandat mu jënd ay gànnaayam commencé rey ay nit ñooñu xam ne bu Macky bàyyee yi lañ jëm ñooñu tamit daal di nekk daal di nekk kon dañuy dem ba jeex waaye Macky bu reculer Antoine Diom day reculer général Moussa Fall day reculer euh, Ismaïla Major Fall day reculer parce que Ismaïla Major Fall lenn rek lañ ko jëlee woon troisième mandat lool rek lañ ko jëlee woon mu def wax waxé mu def wax waxé légui Macky da trahir xam nga li tax trahison bi bon. gars yi xam nga lu tax trahison lu bon mooy Macky Sall daf leen use daf ndax lu bon bon boo amee équipe équipe boo xam ne dañoo dañoo rey ay nit da leen war boole ci sa plan ay Youssou Ndour yi di génn di wax ne Macky waxoon na ma lii yëpp dañuy sóob rek Youssou Ndour ne toog naa Macky Macky waxoon na ma lii yaa xam mbay ah, génn ba ma tax Macky Macky waxul wax ci ñom ñepp waxu leen dara même Mariam fay sax Macky waxtal waxu ko gis ngeen Mariam dafa jaxlé ba dem siège ba di defal gaay yi limu def dafa leen trahir daf leen use dugal leen ci kambu CPI ba paré xam mom dañ koy ndara jappol dañ ko nara a mu rocce ko ne leen sen problème légui nak da nga yaakaar ne ñooñu dañuy ñak fayda ñoo ñu duñu ñak fayda dañ nan ha soga a Macky Sall bëgg bañ a kon man tam Ismaïla Madior Fall dootuma fi nek di nan damay jema japp Sonko Ismaïla Madior Fall ban ban intérêt la am léegi né day jema japp Sonko est-ce que dégg ngeen ñu wax wax waxu japp Sonko mo dakk bluffé ci aduna wax naa leen bu doon jouer poker kenn du ko gagné tournoi poker yi am Las Vegas bu fa mag ki nekkoon ci jouer kenn du ko gagné les décisions de justice hein, je vais ce qui me reste hein, avril je vais diriger le Sénégal d'une manière très ferme toutes les décisions de justice vont être appliquées Je ne mënalul pas Sonko barka C'est Sonko sañu ko ban intérêt la les Antoine Diop nañ la ñuy jàpp ko xanaa leen ne dañ koy jéem a xañ élection yi mu bañ a bokk waaye ñoom bu yëf yi dëgëree dëgër dëgër gars yi heureusement ba ma ñëwee fii taw bi metti nag heureusement ba ma ñëwee Brooklyn tey su ma nekkoon Manhattan xaw ma fa laay defee sama live est-ce may déglu bu baax est-ce may déglu bu baax ah non ñëwaguma si ñoom Déthié Gàccee Fall bu dul Déthié ñoom Ismaïla ma Fall Macky Sall daleen leen trahir ndax nit ki boo bu lay liggéeyal la moindre de choses moo nga informé ko mais gars yi nañu waxante dëgg i faut que ñu taxaw foofu tuuti Amadou Ba nan lay nekkee premier ministre Macky Sall waxu ko ne du def troisième mandat Amadou Ba Youssou Ndour Marième Faye Sall non pas Marième Faye Sall Amadou Ba Youssou Ndour euh, Ismaïla Madior Antoine Diome ñooñu ñëpp ñoo yëgandoo ñu ak ñoom ñoo yëgandoo ne Macky Sall du def troisième mandat ñoo ko yëgandoo ci live bi lañ ko yëgee wala boog 10 minutes avant live bi <laughs> parce que Macky bu leen ko waxoon dañ koy wax web Macky bu leen ko waxoon affaire bi day senn ñu ñëpp ñu ak ñoom ñoo yëgandoo day Youssou Ndour waxul dëgg gis nga ñooñu ñu ñu nak ñoom ñoo yëgoon est ce que yéen a ngi rappelé Macky Sall ni mu defon Mimi Touré Mimi Touré ci bir assemblée nationale bi ba ñuy def vote vote pour xol ci bir assemblée ci la xamé né mom du candidat pour nek président de l'assemblée nationale ci bir assemblée la ko Macky Sall toroxal nek do candidat ki moy candidat ñom Amadou Ba xamuñu won Macky dafa yag toroxal wa APR ak wa Benno Bokk Yakar daf leen toroxal démba kenn xamul kenn Le Monde waxon na ko journal Le Monde waxon na ko nee na Macky day def Macky tubaab yi la weg tubaab yi la weg mais weguñu wegul Sénégal ndax journal Le Monde li mu wax moo am dafa ne Macky Sall moo ko xam Macky Sall moo ko xam Mariem ak benn conseil te conseil boobu bokku ci protocole moo taxoon sax ma ne xeyna conseil bobu Youssou nur la mais Youssou nur lu mu waxee sax bo demé du mom Macky Sall wegu leen yëgu leen lii nag moo benn bokk yakkar day tas affaire day tass dañ koo mere dañ ka mere parce que ñom ñu ci bëri li len arrangé won moy Macky né dama bokk xam nga kan la baña bokk kenn rek la arrangé Amadou Ba mom bugulon Macky bokk ñu mel ne ay Aliou Ndiaye bugguñu Macky bokk Cissé sëñ mu Mountakha defu ci dara Mara Morgan moo dàq duul kuy duul mu ne sëñ Mountakha moo ko woo ne ko baa yaa ngi fàttali ko li nga waxoon bu leen ñu sonnal bu leen ñu sonnal sëñ mu Mountakha bu doon daf koy wax bàyyi leen bu ñu bu ñu defee li ñuy wax man Monday Monday Monday morning quarterback moom la américain di wax man Monday morning quarterback yi football américain dimanche lay am Super Bowl en général dimanche bo bëggee wax kuy gagné da ngay dang koy wax ci samedi ba mais do bay ba lundi match bi jeex nga ne way waxoon man xamone na ki moy gagné bu len ñu wax ne sëñ Mountakha moko régler réglé sëñ régler wul problème bi waxul ak Macky Sall ñun xana ñun dañoo dof yeen ngeen bëgg séddoo Sénégal def ay deal ak Macky Sall mak libéré ñu len neex ci nongo daara 22 bayyi sénégalais yi nekk ci kasso bi ba pare ngeen ne Touba kenn dootu fa voté Touba day moom boppam ñun ñu génn ñuus Macky Sall Ousmane ko génn def pression ci Macky Sall Macky Sall xool ne kenn ak milliards yi mu yor daf ko bëgg dépensé waxoon naa leen ko nga di waxuma leen ñun bu ñu génnee tuuti bu ñu dëggalee suñu bopp tuuti Macky sàll dañuy abal réew mi parce que Macky dafa yor ay milliards Macky dafa yor jeeg bu baax bu gisee deem day abal réew mi waxuma len ko fi waxuma len ko bu gisee bu ñu Ousmane Sonko fu mu nekk bi de Sonko bu dëggalee boppam Macky Sall dañuy abal réew parce que doo sàcc ay milliards ba pare da ngay da ngay xeex xaru parce que yow jeunesse bi munoo mënu Macky moo la jeunesse bi moo ëpp jeunesse bi amuñu lu ñuy perte gars yi jeunesse bi xiif nañu xiif boo xam ne jeunesse bi jaaxle nañu mënuñu liggéey amuñu jabar waxuma la sax ay waxu kër waxu kër ñun ñoo koy wax ñun ñi nekk Europe wala États-Unis liggéey denc ay millions mais ñun sax dañ naan est-ce que dinañu am kër mais xale yi waxuñu waxu kër ñoom waxu liggéey la ñu wax non balaa ñuy wax waxu liggéey sax bu ñu yeewoo lan lañ lan la ñuy ndékkee la ñuy wax

ñi def ko gouverneur ben quartier Touba yéen ngeen continuer di dëkk ci ndol xale yi dem ba yeewu Ousmane Sonko ne len bo len genné Sonko ñaar discours yu mujj def tudul serigne tudul yeewu askan bi tudul F24 xale yi la waxal bo len sagane ba projet Ousmane Sonko yaq billahi wallahi ta'ala ci ndol ngeen di dëkk do len xam banex ba dee man ma ngi ni lu bon bon kat bi gis nga dama ñew léegi dem jënd ko jënd na même bu dul dara amna ay affaire dafa neex nga dugg ci ci ci boutique même bu dé cinquante mille nga dépenser wala cent mille mais xalé yi amuñu dara dara dara sen ba paré dinañ def li ñu def tal nday dëkk bi ñaar yoon ba paré naan dañuy dellu ginaaw dëkk bi té lañ koy gëna tal nak nag waaw ak Macky Sall Macky Sall xamagul sax li xew <coughs> Sonko mo len jekku barke rasulallah maki Macky ifini fini c'est-à-dire Macky fa dem ba ci bir marem fay nako ko saway ñu jël suñu milliard ñu dem dubai ñu lek suñu milliard pétrole bi faté ko parce que bala nga né nam day fekk yang fa ba bàyyi fàttel pétrole bi fàttel zircon bi nañu jël suñu xaliss genn rew bi doomu xaraam yi bo len topé wa affaire yi boo topé, ñu nan la deuxième quinquennat troisième quinquennat ah euh, bi bokk nak Badio Camara boo leen topé dañ ñuy ray Macky sama dombu jigen bi xalé la Amadou Sall xalé la nañu jël suñu xaalis ñu dem té Macky Sall li mu def bu ko def dañ koy ray billahi wallahi taalaahi liko ko mu nan day sóob di jéem menacer day sóob mo dàq bëlëfee ci aduna Ousmane Sonko la la ragal moom leen rek ko mën a arrangé Sonko baal ko loolu rek boo ko mën a arrangé mooy Sonko dem ba ci biir ne man ko nekk président amul Khalifa sàll amul Barthélemy Diaz bu leen neexee ñu dem assemblée suba ñu def seen coalition ñu ne dañuy séddoo réew mi sëriñ yi jàppale leen ci ñëpp jàppale leen ci mu jël Antoine Diome jël Antoine Diome bu ko neexee mu woo ko ay mbër gànnaay yi mu jël mu jox leen ko Ousmane Sonko kese kese kese billaahi wallaahi ko neexee élection du am ci Sénégal armée bi mooy jël nguur gi parce que élection bu amul Sonko du nekk président kon armée bi te dinaa wax benn affaire Macky Sall policiers yi ko doon ragal ñu ko ragal armée bi ragal ko parce que jeexal na Macky dafa génn candidat kon commissaire de police yi ak généraux yi dañuy avenir justice juge fi nekkoon jaay seen ngor instant dañuy gars yi partage analyse exhaustive analyse juge yi dañuy tiit moo tax képp ku wax waxu wat aji sa Macky bu la doon fay ay milliard da nga nan ko baax na parce que yow pare nga bu doon da nga da may fay ay milliard nga tok fi au moins ding ma mën protéger mais yow nga jël sa xaliss daw ak Marème ah nga jël sa xaliss daw ak Marème ba paré man ma tok fi nan dama lay Ousmane Sonko moy ñew même bu dul Ousmane Sonko keneen mën na ñew kooku bu ñewé kan mo may protéger fi mu nekk Macky Sall son réseau est démantelé li tax c'est la c'est la mort c'est c'est c'est euh, euh, Ousmane Sonko a réussi à décapiter la tête du cobra Macky Sall moom mooy cobra jaan la xeetu jaan la bu am dangar bu doy wat mom moy cobra bu APR ak Benno Bokk Yaakaar Sonko nak dafa dagg bop jaan bi motax demb wa waa APR nga gis len

mais Sonko Macky mënu ko tej day duul lu tax tëju ko tey def na discours am lan motax tax jëluñu document bi décision bi ñoom servir ko Sonko lan motax tax jëlul décision bi mu dem servir ko Sonko parce que bu ko serviree Sonko tay ñu faté waxu troisième mandat Macky instant yi dafa bëgg comme le Guterres def président xaw secrétaire général ONU bind na di wax way Macky Sall ñu ngi lay félicité ah démocratie tu te amuñu ñu koy félicité amuñu luñ koy félicité ñun Sénégal du Côte d'Ivoire Sénégal du Congo du Cameroun Sénégal ay nandité fi nekk Sénégal mënoo fi nekk dictateur sa bàyyi moomul Sénégal wax nañ la ko ba sonn Marème Faye wax nañ la ko ba sonn yéen ay baadooloo ngeen woon nekk fii New York di di di moodu moodu di mindaanu baadoolu yu tekkiwul dara ñu jox leen lépp ngeen dem ba sàcc di def lu leen neex yaakaar ne mën ngeen xoqatal Sénégalais yi mais ñun waxoon nañ leen dangeen di sonal seen bopp troisième mandat du am te boo leen sàgganee dañ leen di rey yéen li ngeen war a def mooy ngeen saraxuñu Macky Sall li mu war a def instant yi mooy mu saraxuñu ñu bàyyi ko ci jàmm ak salaam bañ ko rey man waxuma sax ay waxu nangu xaalis rey laa wax rey billaahi wallahi taalaahi Macky Sall moo la gën a xam ne buy dof dof di dee ci nguur bi ndax Sonko discours bi mu wax bi muy mujj def di <laughs> ci ne sama yaram dafa tax Sonko discours bi mu mujj def armée bi la waxal pendant dix minutes te Sonko ba muy waxee armée bi nekku fa di leen baab Sonko baabul arme bi daf leen wax dëgg baabu leen de comme Macky Sall nu muy def di martaat waa RPM nu ñuy def martaat soo Sonko marul taat dafa ne armée bi ngeen joué seen rôle ngeen ñàkk joué seen rôle mais li war li ngeen waral def mooy Macky Sall yàq na justice bi makk Sall yàq na administration bi ah yàq sëriñ yi yàq ñëpp waxul sëriñ yi yéen rek fi des vous êtes le dernier rempart bu leen nangu bu armée bi dépassé mënutuñu téye xale yi police dépassé mënutuñu see xale yi Macky Sall génne leen ne leen dem leen ci Auchan yi xale yi di ñëw di di sàcc di pas sàcc di di barkeelu ci révolution bi gars yi gën leen laaj gën leen partagé quand ah gis ngeen ma maa ngi dem ba jógee New York ñëw ba Brooklyn di leen defal laaj suñu xel mi ngi si Cheikh Bara Ndiaye mi doon wax Mister Shake Brooklyn ah est-ce que yéen may dégg Sonko ne armée bi da ngeen war a ànd ak xale yi dem palais loolu moo tiital Macky Sall looloo ko tiital waaye li mu def dafa tas Benno Bokk Yaakaar te loolu daf ñoo arrangé ay Khalifa Sall Karim Wade Barthélémy Dias ji wax ay dëkk bi jàmm lañ ci bëgg violence mujjul wax mu ñu mu ñu fi indi ma ne ko violence yow yow mii nga xam ne yaa fi dàq def violence Sonko bañ lay yóbbu tribunal Sonko moo la gunge gars yi violenté la tey ngay ñëw di wax nit ñi bu leen fi def violence ñoom ñëpp a tiit ñoom ñëpp a tiit parce que à sept mois des élections ñu yóbbu ko arlo parce que Macky bu doon bu doon dafa muus xëy na day naxanteeg ñun sax ba ay booru ut sax ba pare naa parrainage ñëw. mais xoolal fi ñu ko daanee à sept mois des élections léegi lan mooy problème am kan lay jël ku mu mënti jël doo gàtt parce que gis nga militant affaire yi mu la tegal DG yi yéen yàqal Macky Sall ku lee woo téléphone doo jël mel na DG dañ kaa war a woo téléphone ministre yi yéen a yàqal Macky Sall ku leen woo doo leen jël parce que Macky Sall amul militant Macky Sall ay nit yu xiif ñoo ko topp ay maire yu jangul gisulo fa ben xalé maire yi ñoo fa bari paa yi ah bay man man dënu bi bi yalla yalla bu mu dënu bi door dal Macky Sall amul militant affaire amul militant Sénégal dama dama yërem sénégalais Macky Sall daf leen def ay kat Amérique da ngay romb kenn du la kenn du la wax may ma wala defal ma li parce que liggéey liggéey dafa bëri bëri bëri bëri nga xam ne même boo doon am 100 francs sax yaa am nga sa 100 francs bopp mais Macky Sall APR ay kat ñoo fa nekk ñoo xam ne dañ lay dundaloo yaakaar dinaa la jox dinaa la jox nga tuddee sa bopp Rama Macky wala nga tuddee sa bopp Koura Macky des fois nga am chance ñu mel ne Koura Macky ñu def leen député mais benn lay doon ci 10 000 yenen rama mag yi nag di dundé yakkar di dundé yakkar sen yakkar mo tass parce que fukki at ak ñaar nga top nit ki amulo ci luddul ben 100000 wala de 50000 parce que famille la bo xamné dañu dañoo naya naya naya nay am na ñoo xam amuñu ci dara dara sank la lañ ko tégal légui nak dañu dañu tit ñu dem Mermoz yaakaar ne Macky da leen di wo jox leen un million wala lolu même califone dafa tit califone fi mu nekk la lay yema a bu amé ful la passeport diplomatique Macky day dem loolu rek la mën a lijjanti Kaliphone ñaan ja ñaan yàlla jàmm am mu ne saa yi jofal leen ma passeport diplomatique loolu rek ko defee te xam naa dina ko am moo tax moom tamit mu dem kër Macky jaaxle di filmer passeport diplomatique boo amul passeport diplomatique yàqu nga de Kaliphone xam naa dina ko ko defal loolu mooy loolu mooy loolu mooy APR loolu mooy APR. garaaw loolu mooy APR Ousmane Sonko moo ëpp chance pour nekk président 2024. billaahi wallaahi taalaahi amul affaire u Adji amul affaire u Mame Mbaye Niang gën leen laaj gën leen partage te analyse bu baax laa leen bëgg defal waaye taw bi foor na man da xaw nii lay tawee. ñaar taw bi temps yëpp ñu ngi koy annoncé ñu ngi doog a ñëw nag man sama bagage yi dina tooy de Ousmane Sonko moo ëpp chance pour jiite réew mi Sonko bu jiitewul réew mi armée bi mooy jiitee réew mi loolu man maa leen ko wax bu fekkee ne xeex na nag bu xeexee moom mooy jiite réew mi wala armée bi jël ko te moom bu amee fulla loolu lay def Sonko bu amee fulla lii lay def lii lay def Macky dootu la attaqué Sonko Macky dootu la ko yombalal dootu la attaqué boo bëggee xeex yaay xeexal sa bopp Macky dafa dof ba lay jàpp xanaa Macky bëggul dara Macky dafa dof ba lay jàpp xanaa moom bëggul dara mom xamna na ne bu la jappé réew mi day tak ñu fekk ko fa génne ko réew mais Sonko moo war a nekk xam ne affaire bi c'est une guerre psychologique Sonko moo war a xam affaire bi c'est une guerre psychologique Macky sañ ñu jàpp Sonko Sonko na bàyyi di wax sax je vais me constituer prisonnier loolu sax na baye damay dem joxe sama bop ñu japp ma ci affaire Adji comme ça jugement bi nul mais jugement bi bobu bu tamit té Mame Mbaye ñaar tej nañ la fa lan lay jëri bu joxe sa bop Sonko bu joxe sa bop Sonko da nga wara a té dina la wax ni nga wara a boko défé Macky Sall daf ñuy abal réew mi parce que Macky limu bëgg dafa yomb yaakaar na ne bu nee troisième mandat rek dañuy fàtte ñaawteef yu mu def 30 morts yi dañ koy fàtte yow nga jënd ay gànnaay rey suñu xale dañ koy fàtte kenn du ko fàtte CPI dañ koy fàtte kenn du ko fàtte Sonko nii la war a xeexee Sonko nii la war a xeexee dinaa taal mi déggu bu baax li wax Sonko bu bëggee nekk président eh gars taw bi foor def Sonko bu bëggee nek président il faut que mu taal réew mi bu may wax taal nak hey <laughs> eh, gay ah gay taw bi man gëna gis taw bu melni nii samay bagage yaa ngi tooy maa ngi tooy samay bagage yaa ngi tooy Sonko il faut que mu taal réew mi taal réew mi moy lan na ñaan yalla makki japp ko tay makki bu jappon Sonko ne da koy tejj da koy téye ba 2024 loolu ñun loolu la wara ñaan. loolu la ñu war a ñaan Macky sàlla jàpp Sonko ne da koy téye ba 2024 waaye Sonko di dem joxe boppam loolu moom bu ko defee moom xamatuma ci dara man man dama ne leen Macky ñemewul jàpp Sonko bu ko jàppee daf ñuy arrangé gis nga Macky bu waxoon damay def troisième mandat daf ñuy arrangé de la même façon Macky bu ne day jàpp Sonko daf ñuy arrangé taw fii en daanu tawee nii ah danul tawe kan, ni day taw tuuti arrêté mais taw bi mom taw bi mom doy na waar doy na waar waaw léegi makki dafa newon woon ci discoursam on va appliquer les décisions de justice urd dof la nak de eh dof la de attan na de day jàpp Sonko waye bu ko jappé da ngeen lu Sonko wax xale Macky Sall buma jappé makki buma jappé génn leen ngeen jëlee ko réew mi moo tax nag ma du japp Sonko wa légui bu dee Macky dem na ba am xel né man bugguma dé ci nguur bi xaarama bayyi 3e mandat bu dee Macky bu dee Macky ma bamtuwaat parce que image dafa dag bu dee Macky dem na ba am xel mu né duma dé ci nguur bi xaarama bayyi 3e mandat bu makki dem na ba am xel mune duma du ci nguur gi dootuma japp Sonko kon dafa ndara bàyyi Sonko nonu ba paranage Sonko bokku lo. kon la lo la lay signifier limi signifier moy Sonko bu xeexul du bok est-ce que gis ngeen raisonnement bi mu len di defal parce que Macky bu nit la waaw taw baa ngi mu ngi ngi wàññee Macky bu nit la jëppeet ci laa ko daan waxee de ambulance yaa ngi ñëw leen Sonko leen wax mënul Sonko leen ko wax Sonko wax na ko keroog nee na ko mënul ma jàpp waaye Sonko ni mu ko waxee loolu du sens bu baax auto pompier ñoo bëgg jàll gars yi neen dooleen jàll jëppeet ambulance yaa ngi ñëw Sénégal day takk jëppeet boo leen jàppee Sonko waaw di laa ko de laa ko doon waxee de jëppeet jëppeet boo leen jàppee ko dëkk bi yëpp la ñuy taal def ko dóom est-ce que dégg ngeen sama raisonnement bu baax ko fu mu nekk dafa war a ñaan Macky jàpp ko mais ni muy waxee moom dafa mel dafa ragal Macky jàpp parce que mi ngi naan Macky mënuma jàpp parce que contumace su ma joxee sama bopp su ma jàppee huit heures dix heures daf ma war a bàyyi Sonko dafa mel ne dafa ragal Macky jàpp ko alors que moom dafa war a ñaan Macky japp ko parce que bu ko Macky jappé Macky du eggali Macky du eggali 2024 Macky bu wul 2024 kan la arranger ñun la arranger parce que armée bi mo jël nguur gi ñun jéemuñu toppatoo ndax Sonko dina nek président 2024 wala dédé parce que Sonko il faut que mu limu wara a xam il faut que mu jëlee fi Macky ba paré ki bu demee ba sacrifier troisième mandat waaw non tey moom xaw ma lu taw Macky bu demee ba sacrifier troisième mandat mere ne Sonko mere boo xam ne du ko jàpp de mais lenn rek moko ko intéressé doo bokk gars il faut que ngeen yewu il faut que ngeen yewu Macky Sall du japp Sonko lutax japp ñuko tay def na discoursum dem décision bi génn na depuis euh, avant tabaski décision bi le 28 la génn xam le 29 lan moo tax servir ñu def décision bi Macky Sall sañul jàpp Sonko sañu ko bu ko jàppee nguuram day jeex Sonko dafa war a ñaan Macky Sall jàpp ko léegi nag comme Macky du ko jàpp Macky leen rek ko intéressé Sonko du bokk moom moom li ko dese billaahi wallahi taala Macky Sall dafa ñaan dafa soxor mais en plus nag léegi dafa mere booy bi Macky dafa mere booy bi parce que dina ne man Sénégal yëpp laa napp man Sénégal yëpp laa napp ah ñii ma napp leen ñii ma jënd leen sëriñ yi sax dem nañu ba ànd ak man mais benn booy rek moo ma të benn booy moo ma të yàq sama plan plan boo xam ne deux ans ma leb cent cinquante milliards jënd ay gànnaay tëj naa nit rey naa nit ba troisième mandat bi commencé leer ñoom xalifa Sall ma jaxas ma fexe ba jaxase ko xalifa Sall ñu trahir Barthélémy Dias yi nga xam ne dañu woon kenn mënu ko jënd fexe naa ba mu ñëw ci man un an et ma dem sama ruu ma jaay ko Iblis dem ànd ak Gabriel Presse jënd ay gànnaay te loolu dafa garaaw xoolal li ma def yëpp jënd ay gànnaay yoo xam ne xaalisu Sénégal laa leb cent cinquante milliards waaw cent cinquante milliards yooyu fan laa léegi parce que fere 150 milliards la ma lebal ma jënd ay kalachnikov nëbbu ko arme bi dugal ko pale yemu fa ma woo mbër yi ne leen utal leen ma ay nervi bi mbër yi utal ma nervi bi ma jox ma jox leen ah gànnaay yaakaar ne duma feeñ mbër yi rey ay nit man maa leen wax rey leen ay nit ñu rey ay nit waaye nag ma colle ndax mag ki daf ñu ndaroon a rey ba ñu jeex billaahi wallaahi taala bu France bu xalé yi filmé wul woon li xalé filmé rek doyul de li ne nit ñi nek sen balcon filmé affaire bi doyul de ndax Moussa Diop nu mu tuddu Moussa Diop euh, ancien directeur Dakar Dem dik dem na ba siège APR mu filmé auto yi mais ken gëmu wala Macky faalew ko parce que nit ku ñuul la waye ba France 24 jëlee suñu film amateur lolu mo yàqal Macky Sall mais bu duloon France 24 ak Le Monde

gis nga ñi ñi bàyyi woon sax woo na leen ñi bàyyi woon militaire yi bàyyi woon 2019 ñu libéré leen woowaat na leen loolu yëpp mu def ko pour def troisième mandat waaye tubaab Macky tubaab rek la respecté tubaab rek la respecté ay sakataal dem def communication bu bon communication désastreuse gars yi yónni ko ci mag ne ko hey kii wax ko mënul def troisième mandat Obama waxoon na ko doo def troisième mandat ndax Obama ba mu ne Gbagbo doo def troisième génn bàyyil Gbagbo bañ bien bag boo moo nekkoon ci dëkk ñu ne ko bàyyil mu bañ gis nga li daal Gbagbo dix ans pour xaw ma xëy la dem xaw ma sénateurs yi dañoo am doole ñoo ne Macky doo def troisième mandat ba pare ñu ne ko waa lan moo tax muy jàpp nit ñi di tëj journaliste di tëj di tëj lii li tax lii li tax da nga yaakaar ne tubaab Sonko dafa def travail bu baax ak ak Juan Branco <coughs> li Macky liggéey yëpp ñaari at jënd sëriñ yi xoolal juge yi ni mu leen def greffier yi mu affecté demal fii armée bi mu chamboulé daq tin dàq euh, euh, euh, indi dàq Cheikh Wade indi baajo Camara indi Ali Lotu Ali xaw ma lan Sira Sira Ba mu yóbbu ko Cour suprême xool leen Amady Diouf ni mu ko defee procureur dàq Bassirou Gueye parce que Bassirou Gueye bëgguloon rey Bassirou Gueye tëj rek la la mën waaye bëggul rey saawaay Amady moom ñëw ne damay rey rey Mankaabu xoolal Didier Badji ni ñu ko reyee Macky Sall mu jaral ko parce que troisième mandat la bëggoon pétrole bi la bëggoon la bëggoon diriger mu def loolu yëpp def loolu yëpp yàkkamte yaramam tàng parce que moom dafa yàkkamte tëj Sonko ci Mame Mbaye

mu def limuy def travail bu salta bi mu def di wax ne Alfousseyni Gueye mo ne dafa am maniwu te te te lolou ismaël Madior Fall la ko wax nga def loolu yëpp Sonko yak sa plan kon da ngay mer ñepp xam nañ ne Macky Sall xol bu bon la yow yow sa gaay ñepp xam nañ ne Macky <coughs> gaay gën la laa gën la partage xol bu bon la nak fimu nek ni nii né Sonko mere bo xamné billahi wallahi taalahi dafa waat ne Sonko du nekk président mais daf ko mënul rey mënu ko tëj billahi bu ko mënoon a rey da koy rey bu ko mënoon a tëj da koy tëj mais mënul booy bi dara <coughs> moom loolu la war a comprendre xam nga la war xam nga lan la war a moo laa Morgan li mu wax te moom mu boole waale si boppam Sonko ku ko songu sànku xam nga Mollah loolu la wax Mollah moo njëkk sonk sonko sànku amatul vie mu daan am loolu mooy vérité booy bi yàlla moo ànd ak moom même bu dul sax yàlla booy bi dafa intelligent sonko dafa dal xam yoon bu mu jëm guerrier la doomu Casamance la dafa dal Macky dafa Macky moom day tël tël tël tël tël rek

dindi leen sama immunité boo leen dindee sama immunité dinaa ñëw boobu da leen di nax ma ne Macky Sall bu ci dugg mu dëgër bopp jàpp Sonko gis na lu ko dal deux semaine après mu tëkkuñu li fi amoon dootu fi amaat commencé dem ji jënd ay gànnaay teel teel yow Mame Mbaye Niang def nga li ngay def éliminer nga Sonko doo arrêté foofu mais pour wóoral mu ne comme xale yi xeexuñu xalé yi gennuñu tej na sonko ci mambe ñaan ken té loolu tax xalé yi gennu da nga bett ñep man mi sax da nga bett ndax juge keita ba mu né sonko ken duko tej si lañu yëpp ci deux semaines ken xalaatu lo né makki dina dina depp carte gi daf ñoo bett mais comme sonko def na appel té té té té def na appel kon kon ba légui bokk na lolu tax xalé yi tok seen kër lolu nak mo nax makki mu né nak sonko dafa ragal ci la décision mune légui day jàpp Sonko parce que ñom ismaël major Fall ak ñom Antoine diom ñoo ne ko léegi kii amatul doole xale yi bàyyi nañ ko te lool tamit boy xol deug la boy Dakar yi xamu nu ñuy xexé mais ñom xalaatu ñu won ne Sonko dina rocceeku dem Casamance te même bu Sonko demul won Casamance da ngeen wara xamné ismaël major day drogué wu cocaïne lay jël mi ngi ci bitel bi Macky Sall day drogué wu cocaïne lay jël mi ci bitéel bi euh, Antoine Diome ñoom Dior Diagne ñoom ñëpp commissaire Sankaré parce que wax nañ ne Ousmane Sonko du nit bu ñuy jàpp El Malick wax na leen ko wax na ko Ousmane Sonko du dem kaso ci miim réew loolu ku am xel ku sa xel normal war nga ko xam mais comme ñoom dañoo pétrole bi mo len tital ak sen privilège gay gay yor xaalis dafa neex dugg ni ci store bi rek di jënd lo bëgg jënd jënd dafa neex ñew New York gis appartement jënd ko dem dubai di jënd ay or lolo tax sen xel day dem ba dañuy sax patte réalité en plus de ça pour man ñom drogue dure lañuy jël parce que réew mi ku fi tok yaakar ne mën nga japp Sonko te réew mi di tak.

te nit ñi dinañu mer mer boo xam ne képp ku faral Macky Sall dinañ lakk sa kër dinañ laal rey ñoom xamuñu sax danger makki Sall fi mu leen jëlee sax xamuñu ko Macky nag dof na trop dof na lool waaye ci cappaandaw ga dafa am ñu ko wër ñu mel ni Youssou Ndour dafa am ñu ko wër ñu mel ni Youssou Ndour boo gisee Youssou Ndour daan yónnee ba buuba buuba naan ko doo fi defee troisième mandat buuba nan ko sonko ken du ko jàpp boo ko jàppee mi day tak yus Ndour xamna du tok liggéey li muy liggéey 40 ans guerre civile di am ci dekk bi ñu yakata nday Sénégal dañ ko dom lañ ko ndoron def te ba légui bu fi may wax ak yeen sonko bu deggalé bopam ba fu may wax ak yeen parce que tamit ñun patriote yi ñu liggéey li ñu liggéey ba fi duñu liggéey li ñu liggéey ba fi Macky Sall nekkatul candidat rek ñu sacrifier ko rek ñun tam ñu top kon li ñu def 2014 ba légui c'est zéro dama bëgg wa APR ak Macky Sall mu xam la won fa won en tout cas ko ñun ñu koy wax moy la won fa won tay lañu gëna paré pare pour taal Sénégal billahi wallahi taalaahi boy tay lañu wara gëna paré pare France limu def du dara de France Si nous avons ñuy taal tam ñu commencé taal Sonko troisième troisième vague ndax troisième vague beaucoup de deful Macky Sall li mu bëgg jël APR ou la bokk mu nous ko fi mu ko fi Sonko du bokk comme ça système bi Baye Ndiaye li wax système continuer Macky loolu la bëgg gay gën leen laa gën leen partage sama yaram dafa tang analyse bi jéxugul sama yaram dafa tang analyse bi jéxugul Macky Sall dama bëgg mu xamné bu yaakaaree né mom fi mu nekk nii moo diriger mi ngi nax bopam ñun ay sénégalais lañu on n'est pas des ivoiriens Alassane Ouattara yëfu dooméram yoyu mu def loolu fofu rek fële la ko mën defee Côte d'Ivoire rek la ko mën defee yow nan ngay génnee ne bokkutuma Macron sax di la félicité nga jël ministre ray ko jëlat benen premier ministre ray ko ba paré né lég ma fi seuss lolu Côte d'Ivoire lay am Macky Sall dañ ko bëgg wax né gis nga li mu liko dal ni ba marém di yuux dem dem di defal gaay di joy triste marém xamna Ousmane Sonko du sen morom parce que xalé yépp mom lañu andal té xalé yi du ñu nga jël benn doomeeraam ku mu mënti doon ku mu mënti doon na doon Idrissa Seck na doon Khalifa Sall na doon Amadou Ba na doon ku mu mënti doon te Macky tamit loo sax problème la ci moom ndax iñaane dafa iñaane Amadou Ba dafa iñaane Amadou Ba am na lu muy demee mu jël mu teggi Amadou Ba teg fi keneen te moom li mu war a comprendre mooy ñun ñun waxuñu ko duñ ko jox stratégie duñ ko jox stratégie de mais normalement Amadou Ba la war a jël teg fa mais yaa ngi dégg la Abdoulaye Daouda Diallo ko fa la toj fu mu ba ba ne da koy jël makki bu ko jëlé lolu moy ki décision bu dof lay jël dé xol ki a euh, ki nga Quoi remplacer APR respecté wul Amadou Ba mais Amadou Ba moom moo war a gën a xam ne Macky Sall respecté wu ko li tax mu jël ko def ko premier ministre mi Mimi Touré rek li Mimi Touré gàdde moo tax parce que doo nekk ci assemblée amuloo majorité bu rëy Mimi Touré bu bàyyee Amadou bàyyi dem ba ànd ak yow askan bi kon président de l' assemblée bi su mën na kii lay génn kii lay nekk Barthélémy Dias wala keneen looloo tax mu jël Amadou Ba def ko premier ministre mais faalewul Amadou Ba te fii ngeen di xamee ne am na nu muy demee fii ngeen di xamee ne faalewul Amadou ndax au lieu mu jël Amadou Ba teg ko comme l'héritier naturel attan na ko bañ a def dem jël un un illustre kenn xamul dafa mel ne que le président de l' assemblée bi rek président de l' assemblée koo xam ne tojul fenn man xaw ma sax turam nan la tudd suñu président de l' assemblée xaw ma nu mu tudd man xaw ma nu mu tudd noonu lay def attan na jël suur Faye sax teg fa. Macky Marème attan na sax jël Marème fay ne moom mooy candidat pour mam Diop man xaw ma sax nu mu tudd dafa dofa dof cocaïne baaxul biteel bi baaxul Amadou Mame Diop cocaïne baaxul biteel bi baaxul xolu yéefar baaxul iñaan baaxul dafa iñaane Amadou Ba c'est-à-dire Macky nit ku soxor la nit iñaan la Je nénalen, suis comme comme comme comme pour mon, mon, suis APR mon, ne Sénégal mais xool APR quand lañu assemblée générale comme Ousmane Sonko dafa une assemblée générale ngi rappelé ñu ci mbedd bi je pense Mack Sall Quand la assemblée générale nous ne le kii le numéro un le numéro 2, qui mooy lii qui la dictature parce que moom dafa Japon ne daf fiy ba 2035

sacc tama yomb na waaye foo koy tëggee moy problème lolu mom <laughs> bu ko defee <laughs> ah, ah, déjà après tass na ba pare après tass na ba pare lolu mom bu ko lalu lolu mom bu ko defee lolu euh, sax man duma wax man dama nañu japp rek né Amadou balay jël nañu japp rek né Amadou balay jël waaye problème bi moy bu jëlé Amadou Ba ma may ñaan day mer parce que ma may ñaan Amadou Ba mo né won ma may ñaan dafa sacc product kon Amadou bu jëlee bu nekkee président mën na dem ba ci biir mu ne day def enquête ci Mame ci Mame Mbaye Niang parce que c'est son ennemi naturel te Mame Mbaye moo tax ñu dàqoon Amadou Ba jëlee ko ci budget ba yóbbu ko affaire étrangère yéen xamu leen sax lu xew affaire dafa tas instant yi tas na comprendre mais nit ñëwaat ci président ko na def ci boppam ne dafa war a ñaan Macky Sall jàpp ko ba pare bañ ko bàyyi nag loolu la war a ñaan ndax loolu bu ko defé kenn du wax ni sonko moo yee fitna kenn du ko wax bu ko jappé xalé yi genn tal nday rew mi kenn du wax sonko moo yee fitna waye bu makki jappul sonko sonko day am problème gis nga makki bu jappul sonko sonko day am problème parce que fitna dotul am dal da nan ah man sama yoon nekk ci tëj nañ ko ñaari at bokul bokkul sama yoon nekk man sama man li ma intéressé mooy Sonko bokkul day sóob du ko jàpp li ko intéressé mooy Sonko bokkul léegi nag day xaar ndax Sonko dina xeex wala du xeex Sonko bu commencé xeex ngeen gis doomi xaraam yi commencé waaw waaw kii nitu fitna la sëriñ yi commencé nitu fitna la Macky ngi nii ah constitution bi may na ko mu def Macky deful yow nga génn naan xale yi génn leen parce que damaa war a nekk candidat taal fii parce que damaa war a euh, dindi barrière yi leen fii taal fii damaa war a dindi barrière yi fii parce que dañu war a libérer prisonniers yi loolu mooy problème Sonko dafa jot <coughs> Sonko songo gars yi gën leen laaj gën leen partage <coughs> boo bëggee dara da ngay def dara dafa jot Sonko songu Macky Sall <coughs> mais di toog rek kii nee na yeew yi lu ñuy conférence de presse dañuy def conférence de presse doomu xaram yi kenn soxlawu leen F24 yow askan bi kenn Sonko def na ñaari discours tudd leen soxlawuñu leen like leen partagé leen Sonko bu bëggee nekk président sept mois moo ko dese sept mois moo ko dese xamu six mois desewu ko sax ndax parrainage léegi mu ñëw parrainage yi léegi mu ñëw te Sonko du bokk parce que dañ kaa tëj kon léegi la war a jug mu taal ndey réew mi yëngal réew mi te occasion bi mu am pour yëngal réew mi dafa bëri am na ñaar occasion pour yëngal réew te kenn du wax dafa yee na xam nga mooy ban lan mooy ndeyu comme ni mu koy waxee le petit l'insignifiant le diminutif le prématuré le nez avant terme le faible Antoine Diom dit wax ne au dos de ce qu'il bu jarul lan ngay Antoine Djom, moo la dos de ce qu'il président Sonko yo nga yow terrassé Macky Sall ba troisième mandat Macky Sall ko terrassé ba troisième mandat da Antoine ne instant parce que dina ci nekkatu fi d'ici six mois dootuma nekk premier euh, euh, ministre de l' intérieur Antoine Diome moom xam na ne six mois moo ko def mu nekk ministre de l' léegi da ngay bàyyi Antoine Diome moom moo naa la doo génn wala di nga génn génnal nga këdd nday barrière yi barrière yi daanu ñu jàpp la patam pane la booy binenaay commencé taal booy mbuur yi commencé taal buñ la bàyyee duñu arrêté

formez-les deux mois trois mois nous nous sommes parce que le commissaire nous mu ngi tirer mettre la vie de de de d'honnêtes citoyens sénégalais nous les tirer comme des lapins xam je tirer comme des lapins ci discours am la wax sax tirer comme des lapins une haute trahison la Il y Sall waru qui sax en di xaar muy wax y a mandat dañ ko fi Sonko ba mu bindee livre am dafa bind démission loolu tamit c'est une raison valable pour faire partir Macky c'est une raison très valable crime contre l'humanité la def mais Sénégal xamu leen noo leen xeexee boo leen ñu leen di divertir di leen yóbbu ci ay troisième mandat ngeen yaakaar ne loolooy bi Macky Sall mbas leen alors que xeex bi mooy haute trahison bu mu def fii de bu Trump jëndoon benn pistolet bu mu warul jënd billaahi wallahi taala benn pistolet bu ko jëndee bu mu warul jënd dañ koy wàccee am na benn joueur americain Moran la tudd Moran booy bu aay booy bu mën basket defe naa Memphis lay joué dañ ko jàpp mu jënd mu yor pistolet boo xam ne waru ko woon yor ñu suspendre ko xaw ma deux mois trois mois te loolu ay milliards la si salaire bu ko defaatee dañ koy dàq même LeBron James ñu nga xam ne mooy le meilleur joueur du du monde bu jëndee pistolet te waru ko jënd ñu jàpp ko benn yoon mu defaat ko carrière yàqu na waaye nga nekk président nekk doomeram may wax ñaan nañ koy tàcc kii doomeram tey lañ koy gën a saaga li mu def ñun la ko defal wala boppam la ko defal bañ a def troisième mandat defuñu defaluñu ko dafa bañ a dee dafa bañ a dee moo tax mu bàyyi troisième mandat dafa lu ñu ko de ngeen nekk fi di ko félicité lan ngeen di félicité ñun dañoo bëggoon mu def comme ça ñu refet ko fa rey ko taal nday réew mi Sénégal bu bu dul yoon bu jaarul yoon dañ koy taal mu jeex ñu defaraat ko duñu toog ay mbake mbake jël seen bopp def seen bopp ay noobal comme waa Arabie Saoudite maa moom Touba maa moom Diourbel maa moom Mbacké di def noonu ba ba réew mi yàqu loolu duñ ko seetaan du ñu seetaan doomu xaram APR yu xiif yi li ñu sàcc déjà dafa bëri nga bëgg leen fi bàyyiwaat fanweeri at xanaa ñun dañoo dof yàq réew mi dugal fi ay gànnaay gànnaay yooyu dañu war a dañ leen fi war a dàq fexe ba récupérer gànnaay yooyu def enquête képp ku ci takk ñu tëj la muy Antoine Diome Ismaïla Madior mbër yi ñoom Balla Gaye ñoom Modou bu dee dañ ci takk dañ leen war a tëj fexe ba xam gànnaay yooyu fan la dugg

ne la boo demee utal ay xale gànnaay yi maa ngi ak moom mu jël gànnaay yi jox leen loolu war nañ ko seetaan ba dem ba ba février Macky Sall boo leen ko fi bàyyee ba février te xeexu leen billaahi wallaahi taalaahi soxor na soxor boo xam ne day taal senegal ba duñ ko tala jéem a naan dañ koy jéem a nangu xaalisam loolu la bëgg il faut que nous nous nous nous enquête nous nous, nous nous, nous, tas nous, nous, ko nous France wala ñu nous, nous ñi nous nous, nous. nous nous nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous nous, nañu mer nous, nous, li nous, nous di nous, nous, nous, di fayu nous. nous, fayu nous. nous, parce que nous nous, nous, nous nous, nous, jeng non ñànki xaw ma bul ñàkk ñànki moo leen dal ñu dem ci kër Marème Faye Sall di jooy mer nañu mer boo xam ne Macky sàll mer bi da koy jéem a xëpp ci Sonko xëpp ko ci ñun gànnaay yooyu lay jël tas ko yàq réew mi daw réew mi nekk fii ci guerre duñ ko tal duñ ko tal tala jëli loolu la bëgg a def moo tax Sonko dafa war a xam ne dafa am doole mais yow nan ngay amee doole

sur Macky Sall de Macky à Je man xaw pas nag Zator Zator moom du gat pour man c'est le plus insignifiant benn bokk yaakaar tur bi rek la, la fatule. de Macky à Zator en passant par Marième Fay Sall Mansour Fay... Euh, euh, euh, Kiroukou Amadou Ba Mame Mbaye Niang Mamour Diallo Sonko seen dund moo ko ci loxoom la ne seen dem kaso ci loxo Sonko la ne c'est pas le contraire mais comme Macky dafa mën a bluffé bële ba jéem a gëmloo Sonko ne moom moo mën a tëj Sonko mais Sonko il ne doit pas tomber dans ce piège Sonko mooy malaaka moom mooy wax kuy dund ak kuy dee. billaahi wallaahi taalaahi li ma leen wax nii moo am Sonko dundam mooy de mooy moo moo tax bu Sonko dundee Macky Sall dund APR dund maare di daal bu Sonko deewee. ñoom ñëppay dee moo tax ma ne man moom mooy malaaka mawt léegi nag boo xamee loolu boo xamee ne mënuñu la rey mënu la jàpp mais génnal nga doxi say soxla duñu la rey duñu la jàpp saa ñu la jéem a jàpp deux minutes après ñu bàyyi waat la kon kay la preuve mais kañ lay xam dooleem kañ lay xam dooleem président Sonko yéen a ngi fàttaliku bañ ko jàppee ci ci lii nii ci lii nii xam nga fa lañ ko jàppee noonu mooy ba muy def nemmee ko turam lan moo tax yóbbuwuñ ko Kédougou lan moo tax yóbbuwuñu ko Cap Manuel lan moo tax yóbbuwuñ ko Rebeuss au contraire ñoom ñoo doon rassurer patriotes yi di leen wax non jàppuñu ko de jàppuñu ko non il n'est pas en état d'arrestation ñu foto ko ci biir ci biir blende bi Sonko il est maanaam il est calme Sonko ñaqul yërëm froissé wul mi ngi sol mbaxaneem xanaa ba muy wàcc la deful attention tuuti mu fa xasalu daanu ñu foto ko jox ko Anita Diop ngir lan pour Anita Diop wax wan nit ñi ne gis ngeen deewul mi ngi nii deewul loolu rek dañoo ragal parce que kay sof mi ngi doon wax ne ferti dengoog wuy yaay yooyu mi ngi Kédougou rey nañ ko kii naan wuy na nañ ko gars yi tiit Il a dépêché Sénégal Sénégal son en voie il est en train d'être acheminé chez lui partenaire di Nous ñu un a pour defal nit ñi nous photo bi jox ko mais nous nit il a fallu nous nous nous Nous nous activer le pion le pion du général Moussa Fall mom la ñu activer activé mu def ben live 15 minutes ñaata minutes ñaata nit ñoko done sétane parce que Babacar Touré ba légui dafa am ay patrouille yo xam dañu japp né il est crédible kon mom bu joxe information dinañ ko gëm motax APR jaar ci mom Moussa Fall ñoo jaar ci moom Babacar Touré def live 8000 personnes diko sétane seetaan maa ko won bokkoon ci 8000 15 minutes rek la def live nan ngay defee live 15 minutes rek nga am 8000 personnes do ci profito YouTube da lay fay xaalis.

ci laa ko bind ci laaj bi ma ko yow doomu raam nga waaw man maay njaagu Sonko nag doomu raam nga bu la neexee nga nga nga journaliste nga bu la neexee nga ne effectivement am na ay preuve ñoom waa APR woo nañ ma wax nañ ma ne Sonko mi ngi këram wax mais yemal foofu mais lu tax nga naan ñu bu leen libéré Sonko parce que nee nga fit fitna bëggoo fitna xale yi taal nday réew mi juin premier deux trois faale wuñ la Babacar Touré yéen da ngeen war a comprendre kenn faalewu leen Cheikh Bara Ndiaye ngi nii ñu tëj ko nit ñi fàtte nañ te moo la ëpp vu fuuf xale yi déglootuñu sëñ Mountakha déglootuñu kenn Seydina Ousmane Sonko rek la ñuy déglu kooku moo leen mën a wax bàyyi leen ñu bàyyi est yaa ngi may dégg kon président Sonko bañ ko jàppee dañ ko yóbbu këram parce que xam nañ ne mënuñu ko jàpp ku ñu mënul jàpp est-ce que dinañ xalaat rey ko. léegi nag léegi nag comme ñun code Sénégal ba gopp 221 gars yi gën leen laa gën leen partage comme ñun ay dof lañu ko seqal comme ñun ay dof lañ ko seqal bu ñu bëggee xaru ñu ne dañuy def troisième mandat mais bàyyi leen ñu xaru Macky Sall nag dem na ba ci biir mu ne bëgguma xaru damaa bëgg dund damaa bëgg dund moo tax mu bàyyi troisième mandat léegi bu dee dañuy jël drogue cocaïne héroïne nek ci bitel bi ñom la waxal de Antoine Diom... Macky Mariem Mansour euh, euh, Ismaël Major, Amadi ah, procureur ah président de la première ak procureur boudé ñom dañuy jël trois heures de temps rek nélo jour ba xamatuñu li la wax une distorsion de la réalité ñom ñu bëgg gis comme quoi mooy bu ñu jàppee Sonko wala ñu rey Sonko dara du xew mais loolu seen dof la loolu seen dof la ñu rey Sonko Sonko nag xëy na boo gisee muy hésité parce que dafa xam ne ñi ay dof lañ te mën nañ ma rey du dafa ragal de <laughs> parce que dee tamit kenn bëggu ko mais dafa xam ne ñii ay dañu ay drogué lañu li ñuy def tey ñu ko kon su ma mënee gagner du temps wala ma jéem a jaar beneen yoon. lolo tay Sonko de mais Sonko mo le ne mënuñu mënuñu tarafal ay ni xam nu koy ko ci jot parce que Macky dootu la la limu bëggoon ko na Sonko nan ngay pour bokk tout est là c'est ça la question that is the question ni nga mën a def pour bokk réew mi il faut mu tàkk il faut mu nekk ci fitna ku bëgg dara dangay def dara Macky Sall discours am bu doon Amérique la ko defee si yeneen day day highlight li ñuy wax highlight bu doon bu doon bu doon euh, texte la dañuy jël feutre bu jaune fépp saa yu waxee violence ñu ñu ñu highlight ko xam nga nu ñu waxee highlight en français dañ koy def violence après nous comptons. wala ñu ko ordinateur ñu ñu recherche mot de violence ñu gis résultat Nous ñaata la violence Si le discours de Macky Sall utiliser la violence lu mat 20 fois fitna lu mat 10 fois jàmm lu mat 50 fois parce que de tiit loolu la bëgg dafa bëgg affaire faire des muy di parce que bluffeur la faire des yéen ñi fi def lii di sob day duul parce que instant yi xam lan la bëgg eggali te ñun waruñu ko bàyyi fu mu noyyee Macky boo ko bàyyee mu noyyi day nekk di nas di nocci dem ba ci biir sax mu ne léegi sax damay def troisième mandat far force occulte xam nga jaxase réew mi xam nga loolu ma wax naa leen ko xalaat bi def na ci émission wax lan naa même chose li mu bëgg mooy jaxasa nday réew mi février ñëw mu ne maay président ba léegi parce que élection amul force occulte yi ñoo yàq réew mi loolu la bëgg dafa yaakaar ne moo ñu gën a muus léegi nag boo bañee loolu am Ousmane Sonko yow yaa war a attaqué bàyyi leen di wax négociation waa Pastef tam dañoo ñàkk fayda ngay ngeen baal ma waa Pastef dañoo ñàkk fayda balaa may dee ñuy génn naan Macky Sall dellul ginnaaw dellu ginnaaw bàyyi leen waxu naa fekk waxu ragal yooyu bàyyi leen ko doomu xaram bi du dellu ginnaaw danga koy nokk mu da mu daw bàyyi leen bàyyi leen faible seen communication yu faible yi ngeen di def jàmm bi ci loxo Macky Sall la nekk bu bàyyee Sonko bokk mu teg lépp ci suuf ah dindi affaire Adji Sarr mais yéen vous êtes des rêveurs Macky Sall dina dem ci assemblée nationale naan day def benn loi article L29 xaw ma léegi Sonko dañ koy bàyyi mu bok en échange de quoi mais da nga di il faut être réaliste Amadou Ba maa ko gis dem mu nek fi di yuxu di def live seetaanuma mako sax toute la seetaan arrêté en ah, légui ngeen commencer def live parce que makine na bokuma ngeen xam légui xex day metti parce que ñom li ñu bëgg moy li ñu bëgg mo yomb dañu bëgg tok rek makki di len attaquer xalé yi génn défendre len da ngeen di génn ngeen songu nday makki sallah nekk fii di jooy chaque jour Macky Sall Maki, Macky way Maki, Macky dootul gat la preuve mi ngi ni bàyyi na te ko war a pression ba dootul noyyi tous azimuts gis nga réaction tous azimuts xale yi seen yaram dafa tàng boo leen dof dofloo ba Macky Sall nelawloo leen ba décembre ça c'est trop tard là il va faire son forter, forcer. Macky Sall nit la boo leen ko tegee pression day jël ay bagage am daw parce que bakken jam la bëgg yor na ay milliards mi ngi jeeg bu baax manam fay ñaawul de jeeg bu baax la té makki mën na am benen sax ñaaral mën na am ñaaral après boo leen ko tegee pression mu daw waaye boo leen ko tegul pression di dundé yaakaar nan sëriñ yi ah sëriñ yi wax leen ñu def dialogue ah ah Sonko dafa war a bokk bu bokkul élection di am xaaral rek ba parrainage yi ñëw xeex bi léegi la léegi la léegi la yaa war a génn ngeen ne doomu xaram yi ngeen doon dëmmu xaraam yi sàcca ndey suñu 30 milliards Mame Mbaye Niang ba pare naan damay Sonko du bokk ci loolu ngeen ne doomu xaram Adji Sarr doomaraam bi nga xam ne ah Gabriel Kane génn ne ay ojo di wax ne dañ ko jëndal restaurant dafa am restaurant Yoff doomu xaram bobu motax ngeen ne man duma ma bokk élection mais ngeen nek fi di négocier ak Macky Sall di wax naan boy boy na na def li na def la Macky Sall waratul def gat katu nit la trahison haute trahison la def yeen da ngeen wara faxe fexe noonu ko fiy jëlee warul eggali Macky mi ngi leen di nax de Macky pour mom dafa wara a eggali naan maa fi nek ba ba ba avril doomu xaram février sax dula fi fekk Sonko bu dëggalee bopam février sax dula fi fekk wala bu la fi fekk dina fekk nga joxe ci pouvoir yëpp mais tok di xalat ne Antoine diom mo ndara organiser ay élection Amady Diouf moy joxe résultat yeen ci loolu ngeen bëgg a mais wa Pastef est-ce que ça va gay yi laaj leen partager sama yaram dafa tank nañ ko def 120 minutes mu jeex lima wara wax nako wax ben yon mu jeex li ngeen bëgg dafa yomb te Macky moo kon nekk drogué di leen yombalal xeex bi depuis deux mille vingt et un mais mais Pastef musuñu attaqué dañuy toog fu ñu toog xale yi di leen xeexal gat defuñu ko fi ana Guy Marius ak 3 millions mi ñu baara dolli ne moom lañ koy fay assemblée nationale balaa may dee manifestation yi ñëw yow yow yow ñu jàpp leen après ñu dem tok seen kër dem assemblé nan way suñu 20 milliards ji budget bi assemblé suñu 20 milliards ñun dañu tal nday 20 milliards bi Mari saña ñi sàcc ay 5 600000 milliards lañu ñu yow nga ñuy wax ay 20 milliards assemblé nan ci commission bi la bokku dama wara xam fa la millions yi nek fa la millions yéen bu leen ñu sonal doomu xabaay bu leen tax ma saga ñu ma waroon saaga sax li ñu bëgg wa parce que li ñu bëgg mo yom tok rek makki di leen xexal xex bi parce que makki kon la vrai con mooy Macky Sall Sonko musul attaqué Macky Sall musu ko attaqué bu ñu jógee def Sonko nit fitna la dafa bëgg def coup d'état musul songu Macky Sall day défendre rek jàmbaar waaye bu leen ñu sonal nga ne ma ay jàmbaar jàmbaar yi ñu ngi ci prison bi jàmbaar yi ñu ngi ci prison bi bu leen ñu sonal ak jàmbaar jàmbaar mooy Cheikh Omar Diagne. Karim Xrum Xax mi ma xam ne dama koy yàgg attaqué waaye dem naa ba ci biir xam ne moom jàmbaar la waaye ay gàccee faal bu leen ma indi gum ci gàccee faal dinaa terminer si ci ñoom merci mais dama bëgg ngeen def ngeen ngeen xalaat bu baax li ma leen wax Macky moo kon Macky amul conseil du déglu kenn mais li ko dal yëpp moo ko dak boppam li ko dal yëpp moo ko def boppam ndax yow nga nekk ci président dëkku làppato nga nekk président làppato loo def mu jàll dix ans tëj nga Khalifa Sall mu jàll tëj nga Karim wat ne doo bokk mu jàll loo def mu jàll Sonko ñëw affaire bu ñàkk fayda ñu ne la bàyyil ndax lii risque la bàyyil affaire u Adji Sarr son الجزيره دي وقتي موم سي ان ان دي وقتي موم نيب دي وقت مو دغر بوب مو ني نونو اي فو مو تيك سونكو بور وورال لوتا فو خالي باخول بن اوبوزان اموتو لون سنغال ساتي غادي الكسيون 2019 سونكو مو نو سا خيخ داك ادريس ساك داف نيو وور nga xamni sonko amagul doole mais do yem fofu mais mune non non boy bi dafa am avenir quoi boy bi dafa am avenir ñam naa ko benn yoon neex na <laughs> gis nga def naa dafa dem ba naagu Macky dafa dem ba naagu tëj naa Khalifa kenn waxul tëj naa euh, euh, euh, Karim kenn waxul booy bi su ma booy bii mi ngi commencé am doole mais bu muusoon affaire Adji Sarr ba ñu waxee ba sonkoo génn ñu ne dañ koy jàpp mu essayé booy yi commencé sànni xeer mooy jour bi ñuy njëkk a jàpp Sonko nekk dañ day wuy ji par force gendarmerie

mané ne Macky bul tombé ci piège bi Sonko du wuy ji Sonko il va gagner du temps deux semaines yoyu ci la ñepp nak aduna bi yëpp nak brancher sen affaire yi ci ñu Sonko nag ne wuyuma Sonko ne nak wuyuma parce que ni ngeen lever euh, euh, immunité bi c'est pas normal waro leen ko woon lever ni man waxoon na Macky Sonko du wuyu mais Macky bu muusoon fofu la waroon ne légui immunité bi dafa waroon bàyyi affaire bi mu say foofu bu continuer nekk ci li mu nekkoon mais problème Adji Sarr moo yëngal nguuram au lieu mu am jom ñaari semaine la ci teg mu ne lu fi amoon dootu fi amaat kon xam nga xeex bi ñuy xeex moom moo koy déclenché ndax moom moo jàpp Sonko xale yi réagir Sonko génnul leen ne damay dem pale Sonko saa yu ne xale yi génn leen xale yi ñu génn la preuve Mame Mbaye Niang

drogué yi neko ki kii na amatul doole xalé yi mi ngi ni wo xalé xalé yi génnuñu yi ngi ni di seetaan ya ngi tok vitre parce que makki tapet la limu doon def yeb day essayer xool Sonko bañ koy japp japp ko yóbbu ko gërëm tribunal tunnel bi fi ngay jaar do fi jaar toj vitre sop eh prenez le même bañu ñu bañu ba ba ba ñu Sonko euh, euh, vitre après mu tejat commandant bi mu ngi nan gars Qu'est-ce que vous faites? <laughs> Hi, how you doing? <laughs> thank you, thank you. hello qu'est-ce que vous faites? Hein? prenez-le. même euh, les gars de la Bible, ils étaient tétanisés Ils ont parce que Sonko ils ko. prenez-le qu'est-ce que vous attendez des fois ñu commencé ko saax-saaxe sotti ko ndox sotti ko poison affaire yooyu bañ demee nag ba ba ba ba am confiance quatre mois yoo xam ne Sonko dem na ci tribunal daf naa huite fois dara xewul Macky sàll nag gars yi ne ko kii daal dañ ko jàpp benn yoon am na nu muy demee sax ñu rey ko parce que xam nga lan moo gën a jox ma confiance Macky pour mu ne day jàpp Sonko da doon wax ak Barthélemy ak xalifa Sall ci suuf Sonko yëg ko di di jox Barthélemy lu mu bëgg a dégg Barthélemy di jottali mag muy wax xalifa li mu bëgg a dégg Khalifa déggoo Sonko ne maa ko tey bàyyi leen ci biir Macky nag ba mu fexee ba xoqatal Barthélemy ba pare Barthélemy ragal parce que Barthélemy dañ ko ndoroon tëj nangu nangu mairie bi Sonko wax na ko ko Sonko nee na ko Macky dafa bëgg nangu mairie tëj Barthélemy mi ragal dem jébbul ci Khalifa Sall dafa bëggoon bokk Khalifa dafa bëggoon bokk ñu ne ko léegi dinga bokk ba pare dikk ko te da di jox xaalis parce que Macky Sénégal moo bëri xaalis le Sénégal est un pays riche ay milliards la yoon moo gën nay ci àdduna Macky Sall mo gëna nay ci aduna mais depuis 2021 dafa xam bu bëggé toogaat ak pétrole bi di ñëw mili il faut mu gën ci milliards yi commencé jox gaay motax moo juge ku nek ay mam Maham Diallo ay 1 milliard lañ jox 2 milliards dégg nga Issa Issa Ndiaye dégg na 850 millions lañ ko jox Barthélemy da koy wo dama lay tejj bo bañé nga daan ko xaalis nga ni un milliard ngi nii boo nangul ma tëj la nangu mairie kon Bart daan garaawal bàyyi ma jël un milliard Khalifa Sall da ngaa bëgg bokk un milliard ngi nii waaye man damay nekk candidat de seen waa ji nag du rëcc de xam nga Sonko loolu la ko wax loolu la wax euh, Barthélemy loolu la ko wax Macky nee na sa doo rëcc de bii paa doo rëcc parce que ñoom ñooy dem ci Macky ne ko booy bi day soob rek booy bi booy bi Macky fi lay génn di wax ay mortal combat mais boy bi bëggul dé ah loolu la ñuy wax Macky Sall boy bi dafa ragal gisulo musulo song musulo song chaque fois ya koy japp rek boy génn mais mom mom mom, day wax ni ay mortal combat mi day sop ragal la loolu la ñuy wax Macky Macky dem nak ba am confiance et puis comme Macky mom dafa japp né tasna naa askan bi mu dem ma nagu drogué yi ñom Ismaïla Madior Antoine Diome nga xam ne moom moom dafa dof moom moom moom moom moom moom moom Dior Diagne la xaw ma moo ko yàq xaw ma xam nga boo nekkee nit ku ndaw en général da ngay bëgg di def lu gën da ngay bëgg soxor boo nekkee nit ku ndaw waaw ay commissaire Sangaré sanguinaire ñooñu ñoo jay Macky ak plan bi mu lal depuis un an et demi mais xanaa yéen gisu leen Juan Branco ñi mu tudd ñëpp ay ay attestation Adama gay xaw ma moo moo wane ne jënd nañ ay gànnaay ñu tudd ci ay waa France góom góom xaw ma ak Aberdajad xaw ma ay ay tubaab yu xonq yoo xam ne euh, Branco def leen kii ak ñeneen ni ñeneen ni ñeneen di wax ne kii mooy yor communication Macky dafa defar benn réseau bu rëy la defar réseau bu rëy qui ko jox confiance vous ne Dakar yi Son ragal la Et comme xol bi bon dafa bëgg toroxal corps..! comme nous, Cheikh Bara Ndiaye toroxal ko euh euh, euh, euh, euh ki Mandela ak Cheikh Omar Diagne Boy.. Boy.. Pape Amadou Touré. xol bi Macky Sall xol bi moo bon xool leen discours démb bi rek mu muñ doon tëkkoo buy wax daf ni kanam gi di ñoo ñooñu nag ñoo ne ko Sonko amatul doole en plus de ça Diomaye waaw en plus de ça xaalis baaxul pétrole dégg nga naan dëkk bu am pétrole dëkk bu am pétrole milliard baaxul day day dis li ñuy wax distort your your um, brain gis nga milliard xaalis ak luxe boko ko bo tité nga gis ne Sonko rek motax motax moo tax tey ñu bëgg amuñu da ngay dem ba da nga Ki kii est ce duñ ko ray ben yoon noppalu ki mën na am buñ ko rayé xeyna dëkk bi dina tak ni tuuti rek mais après day set ñom dañ lay tok bu ñu gisee xaalis biy waaj a ñëw milliards yi ak aussi li ñu jot a yor kër yu baax yi almadi yéen gën dem ngeen almadi te ne kenn rek leen mën a yàqal kenn parce que Khalifa Sall jënd nañu jënd nañu Barthélemy Dias ah ñeneen ñi xoqatal leen tëj nañu tëj nañu euh, volet Walfadjri dégg ngeen Sonko ci boppam wax ko am na ñeneen ñu ñu jënd mooy ba muy wax affaire Jésus Christ

seytaane moo leen dugg ok mais ñom dans leur fond intérieur xam ni li ñu dugg baaxul ki du ku ñuy laal El malik wax na ko Ousmane Sonko du nit ku ñuy tëj ci même réew Sénégal Sonko même liñ koy jiiñ bu doon moko def mara day tali mënu leen ko teg doole bobu la am mais seytaane moo leen jël di leen ruux ñom xam ni li ñuy dugg ni baaxul mais buñu xalaté milliards ne kii rek moo ñu dinañ ko jéem a baab ko jéem jënd mais Sonko kenn mënu ko jënd boo ko jox cent milliards mu ne bëgguma cent milliards ba pare Sonko bu génnee génne ay ay laare laay alxuraan inna lazina amanu wa aminu saliqaat wa tawaataw bil xaq wa tawaataw bil sappi làmmiñ bi moo set mu lay génneel ay aaya temps yi loolu lu bees la loolu ci 2023 bi la ko commencé man daanuma ko sax deg muy wax tax tax dafa modeste mu won len ne man lol nak da di gën tital parce que daan ki ki kii moom yàlla rek la la gëm xar bi nek ci ginnaawam kuy bu reuy kuy bu reuy mo nek ci ginnaaw man maa ngi Adamo di wax sax kuy bi kuy bi dafa ndoron bak euh, euh, Sonko mais gis nga bu ñu mu kuy gi dafa mel dafa jak kuy gi man man mi ngeen gis xar no muntu tol bo xasse am béjjén suma taxawé sa wet man Mister Shake billaahi wallaahi taala man je dama man xaw ma damaa ñaan njortu si lépp man damay jàpp ne accident mën na am xar bi mën na ñëw rek mbëkk mi mais sénégalais moo feex da gis kuuy bu rëy yor ay béjjën ñu toll nii yow nga taxaw rek di raay naa non noo xar bi soxorul xar bi soxorul mais xar xar la mën na réagir la preuve boo demee ngeen seetaanaat vidéo Ousmane Sonko am na benn moment billaahi wallaahi taala béjjënu xar bi ci xolu Sonko la def nii Sonko def nii mais loolu waa APR yi nga doon ñaan yàlla na xar bi rey Sonko benn yoon mu sedd ñoom bu ñu sañoon yàlla day rey Sonko te ñoom xamuñu ne Sonko même bu dee woon moo naturel sax dañ naan yéene la yéene ko rey booy bi moo leen jaaxal daf leen a jaaxal ba sax dañuy dem ba dof ñu ne kii dañ ko war a rey waaye bu ñu toogee xalaataat xalaataat xalaataat ne ne jaru ko jaru ko buñ ko reyee

lu bon bon dafa am doom jigéen xale Amadou sàll xale la pourquoi mu Macky ndara sacrifier life am rey Sonko même boo jëlee avion daw senegal day takk adduna bi du la ko baal adduna bi duñ la ko baal Macky dafa dem ba ci biir ñoom Youssou Ndour waxu ko parce que Youssou bu toogee ba ñu rey Sonko senegal TFM dañ koy raser waxuma la TFM yi dañ koy raser Sénégal yëpp dañ koy def dóom ñooñu nag ñooy toog wax ak moom moom ci boppam dans ces moments de lucidité euh, euh, mooy du chaque jour lay naan nag Macky du chaque jour lay naan de chaque jour lay jël butéel bi ak ak cocaïne dina am moment boo xam ne benn weekend mu tëbal ci moment yooyu nag xëy na dina toog xalaat mu ne xëy saay xaalis bi ma dent fële il Canari Sonko daal nako baye rek mu jël président mu nek président billahi wallahi taalaahi foofu laay ya, jeexalee gars Ousmane Sonko bu deggalé bopam xex nak xex affaire bi il faut que mu tanga bu xexul dara du am il faut que mu ta génn tàngal ndey réew mi ba réew mi tàng li def le 1er juin xeeb len ko man ngeen wax ne duma bok ci élection yi yi ngeen ne doo leen 700 da nga leen di bàyyi léegi par force xeex boobu moo mën a tax Ousmane Sonko jëlee fi Macky Sall bu fi Macky jëlee nag bu fi Macky jógee ci la Ousmane Sonko doog wax waxu président mais affaire bi fi mu nekk nii armée bi soit Ousmane Sonko xeex xeex bu tar ba makki Sall démissionné nga xam ne sax armée du sax jël pouvoir Macky Sall démissionné jox ñu suñu réew wala bu dëgëree bopp Sonko xeex ba armée bi jël nguur gi Macky daw. loolu moy meuna tax patrouille yi am jam jom mais nek fi di jema dundé yakar Yakar. né ne ay menaces ak ay discours Amadou Ba génn di wax rek rewmi soko du am élection du fi am élection du fi am mais élection bu amul ñun ñoy perte xeexu len ba ba ba février wala parrainage ñun ñoy perte affaire bi wala waa Macky loolu Macky Macky moom mënul mënul fi toog deux ans mënul nek Macky jéxal na billahi barki rasulallah munu fi tok 2 ans te dëkk bi nek ci jàmm fi du fi du Côte d'Ivoire Sonko loolu la wara def barrage yi prétexte le pour xex libérer prisonniers yi prétexte le pour xex li ngeen ma tek ci Adji Sarr day deñ prétexte le pour xex li ngeen ma def ci mambay Mbaye day deñ prétexte le pour xex Macky Sall 30 morts yi ak ganna yi nga jënd haute trahison

yi tax nga wara xex xeex te muy nek jihad ndax kat nit dof rek kesse kesse war nañ ko mën xexal jomay fay kesse ami ja bu makki dawe bàyyi leen nga ne day yom damay bok par force te du yete te bu ne waw da ngay bok bu mu nangu Antoine Diom di organiser élection manan Nyan, ñaan Macky Sall na organiser ay élection doomu xaraam yi yéenay yéenay doomeram Macky Sall dafa wara bàyyi organiser ay élection doomu xaram bi kan moo jox muy organiser ay élection satch bi 2019 dafa satch élection élection législative yi Farba Ngom dafa satch ni kan mo len di jox ñuy org mais Sénégal il faut nga nek ay nit quoi il faut nga ay nek nit Sonko nak bu xexul bu xexul nak ñun xamuñu ci dara

nit ki nak bo xasse tay la sa bakkee amatul looy ragal amatul loy ragal ci japp Sonko mais comme Macky bokkatul dootul japp Sonko Sonko nak xeyna day tok fi ak semaine bi kenn du ko ci japp buñ ko jappé même bu ndon dañ ko légui bay wat ko légui bu len seetaan buñ ko jappé comme niko Sonko waxé genn len ngeen tal nday rew mi mak sala daw voilà gaay live lolo nak def heures de temps bon, euh, inshallah, comme taw bi jeex je pense après tout downtown instant Brooklyn la Brooklyn fi la dan ay live Barclays Center la euh, équipe basket bi la euh, Cheikh la ma wax Brooklyn Mr Cheikh, la depuis Brooklyn New York diko ñaanal na ko du wax ko Cheikh ñaan Euh, euh, miiru Rebeuss ñu génne leen ñoom ñëpp ñoom xarim xum ñu fa nekk ñëpp ak prison Sénégal yi waaw loolu lañ koy ñaanal yàlla na yàlla def ñu ñoom ñu génn ko parce que ñun du ñu ñaan Macky Sall Macky Sall amatul lu ñu koy ñaan doomu xaram boobu moo ñu war a ñaan moo ñu war a ñaan di yaakaar ne moo ñu gën a muus yaakaar ne dañ ko fi bàyyi fii ba avril dafay nax boppam voilà gars yi ñu def noonu ñu def noonu euh, le combat continue après ngoon incha allah ñu defal leen takkusaanu Times Square si si le temps nous le permet merci beaucoup. laaj leen partagé leen nag dem leen sama TikTok tamit Mister New York sur TikTok Mister New York sur TikTok New York nag day am trait d'union merci ah New York neex na jaajëf Angela fay waaw mais man vacances ak laa fi nekk de.